dafa wax ne en présence de Dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal d'observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution su muy juumul 134 100 103 103 articles et des lois loolu c'est des centaines de lois au Sénégal pour ne pas dire un millier de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles l'intégrité du territoire la superficie du Sénégal et l'indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine loolu la texte bi wax maanaam Maïmouna Ndour Faye lii kuñ ko sas doo taree xew opposant lii kuñ ko sas doo tal nekk fii di dóor dàqeeg di tëj ak tijji. waroo ko tal. waruloo ko tal ta non waruloo ko tal sax may mën a dóor fay. maanaam lii kuñ ko sas di nga xam ne même bu nekkee da nga am taux de croissance boo xamante ne bii ça dépasse les 4 pour cent nga xam ne pour certains économistes ça relève de l'embellie mais une croissance à boo xamante ne bii c'est objectivable parce que pour certains c'est un taux de croissance boo xamante ne bii c'est extraverti di nga fexe ba ñu am un taux de croissance introverti lii kuñ ko sas nga am réew moo xam ne tu as deux cent cinquante entreprises françaises qui emploient plus de trente mille euh, jeunes trente mille sénégalais di nga fexe ba nga xamante ni bi ñoom lañ tey am day des ci biir réew mi may mun a ndur fay lii képp koo xamante ni bi dañ dañ la ko sas au pire des cas di nga revoir pas mal de contrat et au pire des cas encore win-win lay doon maanaam lii kuñ ko sas di nga fexe ba nga xamante ni tourisme bi dafay dox Maïmouna Ndour Faye lii kuñ ko sas waratuñu agressé Maïmouna Ndour Faye lii kuñ ko sas maanaam nit waratul toog di xalaat jóg song Maïmouna Ndour Faye dem ñibbi lii kuñ ko sas war ngaa fexe ba journaliste yi am liberté d'expression et non une expression sans liberté lii képp koo xamante ne bi dañ la ko sas war ngaa fexe ba transport ñoŋ war ngaa fexe c'est documenté par la constitution nit ñi am sañ-sañu def choix ci li ñu bëgg a jàng. moo xam c'est des arabophones moo xam c'est des euh, francophones lii képp koo xamante ne bii dañ koo sas texte document de plus de cent et cinquante pages bi nga xamante ne bii mu ngeen tuddee projet résumé ko jaay ko sénégalais yi. war ngaa fexe fexe fexe fexe boo deful lépp tamit li ci gën a am solo ci sa kenke nga def man jàpp naa ni c'est ça la prestation de serment donc amul lu gën a féete kaw la station la plus élevée de la seigneurie à travers le la république donc man jàpp naa ne wàññi nelaw la def itte soxla sénégalais yi comme ni ko Cheikh Ahmed Tidiane Chérif waxee donte dafa nekk gannaaw étoile polaire dangaa war a dem ba foofu jox ko sénégalais parce que en privé Abdou Diouf le disait man seen surga laa donc il il en fait le premier de sénégalais mais daf ñëw dafa war a nekk le premier des sénégalais ci lépp en vertu ci lépp en comportement parce que on n'est jamais assez on n'est jamais assez prêt pour être président de la République mais quand même y a des qualités l'écoute l'humilité se faire entourer par les meilleurs collaborateurs mais au, sous nos tropiques en Afrique on a des présidents qui ne sont pas mal entourés entourés c'est parce qu'ils ne sont pas entourés loolu mooy affaire bi moi je pense que ne daal en résumé Bass comme je le surnomme Bass Ndengler parce que on se connaît parce que a révélé donc aujourd'hui bés niki tey waratul am benn itte lu dul nekk suñu mbindaan bu doon ci arab da nga koy tuddee xaadimu xaadimu li Sénégal yi maanaam moom mooy le serviteur des sénégalais bu ko fi kenn utal nag leneen di hypertrophier di jëfandikoo article 80 man je pense que ne tey li nga xamante ne bii moom lañ ko jox bu bu dee pare na pour jël ko ba prêter serment. amatul beneen itte lu dul di dox ci suñuy. ci suñu waaw ci suñu waaw.